ak cosaan lii ñetti juddu yi la fële def fa def tëjë dafa def tëjëli feeñ ci feeñu xaqaayiq ba mu def mu def tanasul salaamun law tara sala kaana siran dafa def tanasul fii nag ba mu dikkee nag ca masaahir nag al masaahiru salaasatu mutasaahiru mutasaahir nag benn mutasaahir moo doon ñetti masaahir rek ba mu dikkee nag doo doo ko judd nag ñu ne laylatul qadri ah? al masaahir mutasaahir waañ masaru ismati masaru ismi am masaru saati kon nag ñetti masaayir alif guddi lañ ndaxte ka jaar seen biir xamuñ nag kon nag laylatul qadri laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi sayr ji nii jiitu génn fii moo gën junni weer wax na ko de wala milliards weer sa weer sa <laughs> waxuma junni weer milliards weer ji nii ci digg fii moo gën ñëpp de lii nag man na mën naa def laylatul qadri boobu <laughs> yéen maa bëgg nag léegi gars yi tey <laughs> ah ah ah ah non ndax xanaa léegi damay dégg ba Makhtar nekk maire Dakar wala ñu def ko Serigne Dakaru su ko defee moom nga xam ne am na doole ci dëkk bi ba kenn duma duma loolu la d'accord naa ci moom ah ah kay bàyyi booy damay jàngale bàyyi moom bàyyi booy bàyyi moom bàyyi. yow léegi tey ma jox la kii ngay ma dama takkal gëriñam gi tiir bi daal law ba tiir bi daal law ba kenn da ay eh, boo tax boo da dañ dañ ne dañ ne jox ndox ñëpp ñu ko ndax ke buñ wax waaye boobu bu ñu waxee rek kenn ki ñëpp wax kenn noppi kon na fii nii la nekkee dëgg-dëgg yàlla ñu ngi nii mawlidun nasri lil urobati jam an rahma qadrin euh, america wa qadril yahuda ay waay dëgg mu ne xam na gàmmu bi mawlidu nasri mooy gàmmoog ndimbal isa jaa nasrullahi nasrullahi fii mooy gàmmoom wal fatu fii mooy gàmmoom kii nag mooy guddi arobati lil arobati arabia jam an ñoom ñëpp raxma xadru Amérique ak trian wu Amérique lu Amérique ak trian yi li muy rëy rëy mënul mënul gàmmu gi dara fu ne américain nax ne fi ne fi ne seen Arabie Saoudite fi ne réer waaye dañu interdit gàmmu màggal yonent dafa aram boo ko defoon jàpp la te bay ba tey fi ma wax dem ci mbedd mi la tagg yonent bi ni ñëwee ko de ci yonent bi kon nag fii nag Amérique mënu ci dara raxma xadri Amérique waqadri yahud ak war yahud ak ak li ñuy américain li ñuy tria tria ak yahud li ñuy tria tria tria fii la jiire ji amee dimbal na Nasir mu ngi nii gàmmu gi gi dimbal dimbal ak Europe mu ngi nii gàmmu gaa ngi nii jii mooy dimbali gis moo tax bàyyi na mu doon di gàmmu bu tàkk saan jotee mu def benn discours dala jàmm boo xamante ni ah dafay wax li passé woon ci at mi passé ak li ñu war a def ci ak mi passé mooy programme lii président président comme ni président def discours boo xamante ni mooy euh, ki nation bi bàyyi noonu lay def ci ci gàmmu bu la neexee ñi jël yaay la say benn bu def rek nga seet at mi ni mu fi bàyyi boo dem ni mu programme waaye ga diw ga ñi ñu gàmmu nañu ah wax ay gàtt ñëpp mën nañ moom laa wax na ma ne ñun tey bu ñu jëlee gàmmu yi waa Sahir yi dem da nga ma honoré euh, tribune bi. defal ko photo yi rafet ak lamp yoo xam day kuy xamal dégg nga maam surtout naam jamono siin waaye nga xamante ni boo bëggee lamp yi bu nekk nga am ko ñu jël jigéen ñoo xam ne dañ leen di dégg nga maam dikkee ak ki ñu dégg nga maam poudre sas basalu toog nag ñu tuddee ko nag ñett ña ñeent wala ñeent ñoo koy def kenn ñu ne moom lañ tuddee pare na gàmmu ñeñ pare na ñu teg wala da nga am ay kii yoo xamante ni muy dikkee ah euh, gàmmukat boo dikkee da nga maam da nga maam àgg ne leen nii ne leen nu ma xamul ah, <laughs> ah? nekk ci théâtre boo xamante ni théâtre lañ nekk de gàmmu waaw ak na xare wax nag te ba war léegi théâtre la de waaw ku bëgg yóneen ku bëgg baay ku bëgg sori ku bëgg baay ku bëgg mbay ku bëgg nangam yooyu loolu dafa nga loo kii waaye yow yow ñun ñun ñun bandaankat yi nax nañu waaye day ñun day bandaankat gam gam gii nga xam ne moo la bàyyi rek gam bandaankat mënu ko gam mënu ko nax ah inna nasra al yahudi لا يتأتى آه وإن نستسر بكل جهود آه إن النسر اليهودي نكا ويكتوار يهود يهودي أم ويكتوار تشنكو لا يتأتى بجفن إذا نمنا كفر نصر موي نمبل نمبل موي ويكتوار ويكتوار يهود تشنكو بجفن bokk moo tax bàyyi boo dem dem baytu muqaddas dem dal ci kaw yahudi yi saaga leen liñ def bind lettre ne ñu duma Israël kenn ñëwul ko discours bi def amul ku ko ñemee bi ci golf bi ci kenn benn professeur benn bu bind la ci ci kon nag lii laa wax victoire yahud du jàppal wa in tasaxaroo même buñ dimbalante bi kulli juhudi ak bépp farlu même buñ uutee ñu leen jàppale xam nga léegi yow yi fañ nekk fële Israël ñoom France Angleterre Angle Amérique ñoo ne léegi buñ fexee guerre mondiale tasaar ne yahud yi nañ fexe buñ leen samp fii duñ am fuñ du waa arab yi ñu jël ko rek samp ko foo xamante ne nga am dara léegi nag jox ko gaaw naay jox ko ndimbal jox ko lépp seen si Israël mën naa nekk benn benn si ah, kii lakkal li nga xam ne mooy réewu arab yi ay téeméeri million wër ko moom matul sax da nga moom ay da nga ay ay huit millions léegi nag mu lakkal leen poŋ ba Iran ci moom ba nga xam ne borom doole yeeg ak li may amoon doole seet lañ ko bëgg a yàqal kon nag mu ne xaw mo fan yow li di am victoire mukk ah ummatun ah la'anuha min allahi qasa ata an isa waxam daawuti cay Muhammad Abdullah ñu ne ko maa rab lay yahud yi nga xam ne amuñu histoire bi ñu am histoire ñoo ñan mu ne ummatun mbooloo la moo xamante ni laxaanaxaa rëbb na ko laxaanaxaa rëbbam mi laaj ci la la yàlla yàlla bàyyi ko kat la moo xam ne laxu ci moo ko yàllaa ko rëbbal boppam bi maanaam yàllaa ko dàq ci payeur maa dem buñ ne rëbb duur ut seet di ko ut ji teesee di ut di ut ra buñ ne définitif génn nga ci sotti yàlla dàq leen ci fa yërmande xasaa wér na arta dikk naa rëbb ga xaani heesa ci lamañu eesa mu ñaan la nekk ay mbaam waxaan daawuda ak ci daawuda mu ñaan ñu nekk ay golo lii amaam kon nag ay sëti golo fi nekk ak sëti mbaam ko ñoom ñii sëti golo moo tax ñoom nag bañ bëgg bañ amee gàcce seen maam ya nekk ay golo ki mbaam ko ñu toog na ñu ne nit mu ngi cosaanu daal li ñu commencé nit mu ngi mu ngi mu ngi cosaanu ñoo mën a fépp <laughs> dégg nga seen maam yi koy ñoo nekkoon ñu soppi leen kolo waaye du dañoo soppee si teru ki kon nag buñ toogee de xas yéen ci bi tey ndax xol bu tàng ndax lim leen weer nañ weer bàyyi ñes nag moo gën a dikk ca weer yi nag moo leen gën a sonal xam na ne gàmmukat dëgg dëgg gàmmukat bokkal day sonal yow de nasaral benn la mooy bàyyi ñes yàq na lu mel la xam laxanat lay ala o <laughs> dégg nga maam dégg nga maam abay ah, baan Nixon Nixon yëpp bàyyi day bàyyi jaar seen seen kaw Nixon waaw Nixon <laughs> waaw waaw nag lii mooy ñoo xamante ni ñu ngi leen rëbb ci làmmiñ Insa ak làmmiñ Daawa nga ne Muhammad lay ummatun taxawal xiyaanat dawman wa taxaadi bi sunni wa taxdiidi Isra ay yahud ummatun mbooloo ma xamante ni tabaxaa seen habitude alxiyaanatu mooy wuur xeet la boo xamante seen jikko muy uruj mooy tab alxiyaanatu moo tax ab yahud ak lum la xaritoo ak lum la kii bul foog ne am na lu mu rafetlu ummatun tabaxaa alxiyaanatu daw man faawu na ak lan woo taxaa di ak muy bàkku gisul muy tooñ moom day bàkku rek wëttal di leen def nangam nangam nangam ji nga arab yi boo gisee lii bàkku Israël day tëb bàkku seen kaw waaw ji nga guerre ba nga xam ne demoon nañ boo bëgg leen di mooy ah, bi nga xam ne mooy eh, bi Jawaan Abdu Naasir jiitoon bañ demee ba bëgg a jeexal Israël tubaab yi ne gaaw leen gaaw leen nañ nañ nañ ànd ci guerre bi ñu def dégg am jolo xaadaa fi ne bu ñuy jalo bu bal balit bu balit xam waaw na balit continué ñu ja ñu jalo waaye gis nga gis booba arab yi booba tubaab yi lañ tëkku gis nga su guerre bi continué yooyu yaa ci am problème yaa ci am problème ñooñu ñëpp nee na kon nañ jalo te eh, même Jawal Abdou Nasser teg rek ba muy teg rek euh, euh, euh, Italie tëddal seen kaw fekk seen avion yëpp ñu bombardé ko. daal de occupé seen suuf xam nga booy booy balaa ngaa kaccoo nga téye ci dara booba dañ bëggoon Israël téye ci dara bu ñuy négocier mu ne bu ngeen bàyyi sama lii dama bu ngeen deful loolu moo tund góolaan bi yëpp yooyu yëpp mu dal ko nangu ñii ñun bàyyi ñett nag lii mooy jamono boo xam ne moom daf ca ñoroon xam ne lànk leen lànk leen mook mook pour kii mook Kadhafi waaye luñ def <laughs> ñu ngi nii moo tax Kadhafi mañ gën a mere mu ne yow bu guerre bi jeexee jàmm daa fexe fa jaar wala lu eh, yi ko ko ku doon bañ ci réewu arab yi Saddam Hussein ak Kadhafi ñoom ñëpp leen jàpp dégg nga maam ren yi li yow gën lii yëpp ay mbokk lañ say mbokk lañ jaar moo tax foo leen mën a man damaa xaritoog yow yow damaa ñoom al tafa al qiyaanatu daaw man wa taxaadi am ñuy bàkku bi zulmi ay tooñ ah def tooñ ba pare da ko bakkoo wataa di di tëgg kay fa nasrul yahudi yow man uhum ah daaw silbasi wal muxaalil sadidi kay fa nasrul yahudi fan lay amee yëpp yahudi fi nga jëlee victoire yow man ab bés bu ko seen xel daj woowum te fekk ñoom yahudi ah daaw silbasi ñooy noonu borom doole ja wal muxaali ak nga xam ne mooy borom pexe ak sadid boo xam ne mooy bu tar borom congo la nga xam ne mooy borom doole yu métti moom lañ noonu liiw towuñ ak kenn lu mooy borom borom doole moom lañ songo day xam ne du ñu xam histoire bi yàlla général yaa dégg ku ku demoon jàllul daaw kon nag nii nag daaw di yëttu daaw da ñu nga gisee bañ songoo xam nga boo gisee suñ prix dafa am yu du nit ñi du seetlu xanaa xamuloo ne boo seetloo léegi. ba ñuy dem de xeexi xeexu euh, ta taal euh, kii euh, bañ ko sambil yebalee mu dem war a xeexi ak jaalu ba ñuy dem boobu wala daawu ci daaw daaw di daaw ci armée boo boobu du na ndax compté guñ ko ndax bañ demee ba nga xam ne xeex moo ca des fekk ni nga maam xam ne mbir mënut sot ñu xamal ko ne ko nag kii rey général bi seen général bi ngeen nommé nii taalu mënut a rey jaalu de. ku ko rey ne benn booy bokk na di dikkul indi indiwu leen ko daawul seetal léegi kon kan mooy sën bi ak kan mooy taalo ñaar ñii kii dafa taxawal nubuwatu kii taxawal wilaaya xeex nañ ba dee te seen xeex sotu seetal baay bi mu dikkee nit si nga xamante ni fay bi tàkkoon dem de tamale yi ay mille millions ay millions dugg ci dugg ci fay fay léegi kon nag victoire bi fu ñu gisee victoire ci ci ci diggante di diina nu bootu ak wilaay kay lañ ko gis ci xilaafatu bi lañ ko gisee ah kon nag lii laa wax <coughs> ah lii laa kon nag daawoo de bi mu dikkee ci rek victoire am kon nag bu leen yaakaar nag eh, eh, yëf yi jeex na ñi ngi ne am na benn nga xamante ne mooy dernier ci lañ leen kuppa kuppa ko xam ne ci la ñuy jeexalee <laughs> da ngay gumbeetu xanaa yow <laughs> rajo dégg nga dégg nga loolu. se seqal. ay xam nga jàng ko ba léegi man xam naa ne xam nga dugal mbal yoo xamante ni ah. nga bind ni xam nga dafa am wax koy wax waxu la. cokkaas boobu nag su fekkee ni gars yi xamuñ cokkaas bi ma jàll <laughs> waaye xamoo ne da booy ñun mën nañu xoola yow da ngay seet fa eh, ni ma ko indi ci xisa bi nga xamante fii ne yow sëyru sëyru ku koy def doxaari fi ne léegi ñu ne Yuusufa një eh, sëyru eh, njëgg ma dikk nañ ca teen ba bañ dikkee xam nga sëyru ñu doon def sëyru yëpp bañ dikkee ci carnet bi xamuñ li ci carnet bi kenn mës a xam li ci biir carnet bi léegi nag ñu dikki nekk daaw kële yosu moo nekk ci biir léegi nag bañ dikkee ñu fa arsalo waa doon waarit waarit ma de xam ku yebal ku yebal waarit kan la du yo du yo xaarif xaarif moom waaritam la yebal mu yebal waarit mooy buum bi mu dugal léegi nag benn xale téye ci génn ñu xool ne ay eh, waay ñun ay kontaan nañ waaye léegi ki nekk eh, kii bi lan la ñuy jàng waa ki nekk waaju xale bu rafet bi nekk xale moo gën a ci kaw suuf tey kan la lii luñ jublu ci lii ah xam ah, ah. waaw léegi nag kasel kii nag kii kan mooy bàyyi Isaaq da nga ma ak ya kii Isaaq ak ya bàyyi Isaaq ak Yaqub léegi kii Ibrahima Isaaq Yaqub léegi nag boo nekk quatrième position ku nekk ci ku nekk du mooy quatrième position kon nag lii kan moo nekk ci euh, quatrième position ci baat bi awul encouragé baat bi du baat bi moo nekk ci kàmb ko kàmb ko léegi baat bi du moo nekk ci kàmb léegi nag léegi kon <laughs> nu ma leen koy léebalee daa xanaa ba nga demee gars yi ba ngeen tey ñu jàpp yoo ko suba def koy def ko laa waa baax na waaw jaar leen ci kaw rek ñun ñu ngi jaar fii ñun <laughs> mën nañu xam nga léegi moo tax gis nga ñoom mën nañ leen bàyyi ñuy wax ñuy nekk ci ko wax tey ba suba ñun dañoo jaar rek jaar ci njo kii rek njubal njubal bi rek <laughs> dem suñu yoon ñibbi waaye gars yi jaar nañ fi ñibbi ñii seen tool yi ah <laughs> yàqal nañu torop kon nag mi ngi nii du xam ne toile ñoom kiñ songoor mooy kan mooy waa ji nga xam ne moom dafa soor yaa xam ne mooy borom cong li moom la ñuy waay Israël Israël moom ñoom la ñoom la waxee woon affaire. plein mille victoire Daouda jaarut attaque naa bi naa victoire mi ngi nii borom congara nag congam naan suñ ba tey suñ demee ñoom yebal soldat yi yebal suñ demee ba mën ñoo liggéey liggéey bi mu ne kaay rek Ibou Diouf ne karaan fal di folli yónnee tur jëmam jëfi taw gis nga Ibou Diouf dafa ko fal karaan yi karaan fal de folli mooy karoon délégué ak de de dëpp fo fo folli jëmam jëfi taw kan kanton borom a ca gën gëm leen Sidi Barham seenal kanton yooyu ba wuy booba kanton nga fi nekk bo ndaxte boo demee arrondissement yi boo ah bu arrondissement booba buur yi ah maanaam tubaab de canton lay fay lay lay taxawal mooy chef koo neex rek mu ne yaay chefu canton bi léegi bañ demee ñu bàyyi canton ñu ne arrondissement bañ demee ñu folle arrondissement dikk léegi ñu def ko sous préfet sous préfecture léegi ci ci maqam boobu lañ toll léegi ñetti ñetti tur dem nañ. léegi su ko defee ñu indi nag léegi ah li nga xamante ne mooy sous sous préfet ak préfet bi préfet commandant lañ ko tuddee commandant de département léegi tudd commandant préfet lañ ko tuddee ñu ciy kii ñu ne ko sous préfet seetal président commercial léegi maire lañ ko tuddee léegi. di di di ah nguur yi yàlla gi dafay changé rek nguur gi mooy changé nag xamoon lu muy taxawee léegi nag nguur gi daw na ba nga xam ne dikk na ci loo xamante ne moom boobu yëf yi nag kan nag. liggéeyloo naa leen yén yonent yi liggéeyloo naa yonent yi da sottuwut liggéeyloo naa wali nag kaay yow daaw da kaay dem rek del sama gaay ah du loolu ma am ah kon nag ngeen tey nag ah kayfa nasrul yahudi yow wa ah. wahum ñoom ñooy noonu borom doole ñu mag ji wal muhaali borom plan bu fort moom lañ diggaale ni day réussir bi lay di réussir moo tax gis nga fi ne pour ñu pour ñu koo xam ne xam ne dëgg dëgg li xaw ba dëgg yëngu-yëngu yi tax ci yow lay ci sa yow xam nga lu yàgg sa waay mooy yaa victoire ah kii laa idaay kii mooy xam nga tey tey tey tey tey tey son mooy comme ne tey nga sonn <laughs> tey son bàyyi daal kooku kooku du du mbër de comme <laughs> ne tey nga sonn <laughs> ah bul fàtte kii mooy bul faale xam nga lépp ñoom nga def mbër la kii nga xam ne mooy mooy mooy mooy Daouda Daouda mooy bul faale ba mu dikkee ak xalem ka ak jaalut ak mbër gi mu doon ak nam nekk si naa mbokk mbooloo ah léegi nag ba ñuy tëf rek mu dóor ko Cheikh Seydina Ali kat Seydina Ali noonu la def ak Omar ibn la doon Omar bi nga xamante dem na euh, euh, kii bi bi ndikkee Mouhamad ci Mouhamad yàlla moom itam mi nga ànd ak yaa xamante ni mooy waa ji ci biir ne ko yow nag euh, xale nga moo tax war am le doo defal xeex ak téeméer du ma leen yëpp léegi nag euh, bi ñu defee xeexu xàndax bi nga xam ne dañoo euh, kii ba kenn du mën a dugg ma moom nag ki fii tamit mu tëb ne cirib ci jàll ci mbir ne yéen da ngeen wax ne ku ci dee ajana yem ku ci bëgg a dee lee ku ci bëgg a dem ma yóbbu ko ajana la ñëw ku ne bëgg a jóg mu ne bàyyi Omar Aliou Aliou jóg yow xaritu sa bàyyi laa ko man sa papa laa yërëm naa dama toog xam nga xajma coow mu ne ko xam nga lan fii amu am fi tey de doom xeex wala ma dal sa kaw ah mu ngoon a xale bi ne def bu ne door ko jaar mu door ko jaaseel mu xale ba ci suuf yonent bi fekk seen ko ay ay gëre ñoom ñëpp ñoom ñaar fay nekk amul sollat yonent bi laahi rey na ko allahu akbar Aliou rey ko allahu akbar Aliou rey na ne loola daawoo daal daaw rek dafa dikkee boo dikkee tudd ah na sa ëtt bu fi bu dikkee dafay waaw moo tax nag ñoo boo déggul léebu léebu gaa yi seetal léebu gaa yi seetal bi nga xamante ne euh, Cheikh Tidiane def ne Aliou Aracim moo nekk di kutalam Aliou Aracim njëkk na la Cheikh Tidiane juróom-ñeenti at ba léegi ah ñu ne xanaa Cheikh Tidiane dina wax lu gën ci mu ne hee eh, benn xalifa laa ut ku jaar ci moom du am ci man dara. te njëkk na ko nelaw ñi ne fukki at ak ñaar léegi nag bañ dikkee xamuñ nag xilaafa gi nu mu too nu mu doxee léegi nag bañ dikkee ba ci bàyyi bàyyi ne eh Cheikh Tidiane waxul Aliou Arasim la xarasim yéetoo nga la wax xarasim yéetoo nga la mën a rek kon moom xam nga ña xam-xam ne kon moom mooy xarasim yi kon nag kii nag mooy kii nga xamante ni nag moom lañ nekkoon ci moom lañ doon nekk ci guerre première guerre mondiale jeex na nañ dem deuxième troisième te kii nii gis na gis na ñun ñun ñaanaan niñ koy gisee. dafa foor fooraay boo xam ne suñ ko waxee nii dañoo am problème. ñun ni ñu ko gisee. dafa foor seetal bàyyi woote rek ñu ko defee ñaari woote. premier woote ak deuxième woote. Mouhamad Mou Lamine Lamine Gueye Mouhamad yéen bi mu ne ah man ngeen naqari toog Mouhamad yéen bi léegi ñu woote ni ñu wacce ko wacce ko Lamine dem ci Senghor mu ne kon gagné se Senghor gagné gagné seesu biti ah moom gagné seesu biir léegi mu ne ñu jël Cheikh Tidiane xam nga Cheikh Tidiane woote Cheikh Tidiane si. léegi Cheikh acca acca Cheikh may sa may sa bàyyi mu dem dégg nga maam Cheikh am fit nag ak ànd ak ànd ak léegi nag bañ demee ñu wootaat ni ñëw wàcce ko Cheikh dem ci kon premier tour ak deuxième tour yëpp def na ko bàyyi keroog la jeexal soo wote boo ko def suñu élection suñu élection wet fi ñun de ñu ne wote bu ëllëgee bu faroo defal ma nangam bàyyi déedéet moom daf daan nangu sees sees boo xam ne moom moo ko mu ñu xëccoo ko moom xalifa sénéro te moom mooy xalifa général te xamuñ ne kii mooy xalifa général dina war ñëpp ne may xalifa général wa suuyibtu fi asa samani wa inni la fi xiiratin man yoru Muhammad man jamono ah tey nag man la ñuy di mbagg fii tey daanaka wax ne du ma seen morom dàq naa leen tey Muhammad ya maa ko féete man wootee lu ma Lamine Gueye Lamine Gueye lii muy wax gis nga Lamine Gueye ak Gueye bàyyi ñu ko wax sax dëggaguñ ko wa Lamine Gueye Lamine Gueye laa wax xam nga seen Lamine Gueye dafa ne Lamine Gueye xam nga buñ ne limi rek. waaye Lamine Gueye ñu ne Lamine Gueye Lamine Gueye nag du mu jox Lamine Gueye institution la man <laughs> institution lay xam nga Lamine mooy ka administrateur bi léegi nag Lamine Gueye mooy institution bi man wateeluma man ki may Lamine Gueye siège bi lay wateel man Ibrahima nii lii neex na wax te mi ngi nii nag nañ naar yi xam dégg nañ dee ñun dañ leen firil seen dee li ba nit ñi ba xam nit ñu dañ xaw a avancé tuuti ah ma ne <clears throat> ñu taxaw foofu am na soxna sa dikk <laughs>